jërëjëf euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan seen télévision euh, Futurs Médias ci élection présidentielle bi nga xamante ni ñu ngi ci. guddi euh, 24 euh, euh, février bu soobee yàlla dinañu xam kan moo at waaye laata télévision Futurs Médias daf émission bi nga xamante ni émission bu bees la jagleel ko présidentielle bi muy force des traits bu ñu nee force des traits nag moom mooy def nga xamante ni ñoom candidat à l' élection présidentielle waaye suñuy nataal nag peut-être dina am ay njombat yu sew yi nga xamante ni

donc man dama nekk dama bëgg jàng parce que maa ngi jàng ba léegi mais dama bëgg jàngale aussi moo tax bi ma yàlla mayee ma am kàttan sos université ma sos université du Sahel. en euh, euh, euh, na université la ci moom la tax ko bi nga sa doom la université. ah sama doom la moom kay maa maa def fondation bi. Mhm. tabax ko. recruter enseignants yi étudiants yi ñëw. pose première pierre bi lan nga ressentir. Euh, alors challenge la woon hein parce que 96 d'ailleurs parce que université bi 98 la demare 96 laa ko commencé defar euh, mu jël tuuti temps 98 euh, la étudiants yi njëkk a ñëw ñëw. waaw donc noonu la demee ñun nag ba ñu koy def aussi nekkuñ sax di wax ay pause première pierre yu demee noonu dañu jënd suñu terrain rek commencé. fas yéene rek. ne ko lu ci yàlla suñu borom def rek noonu la donc noonu la def ba kii bu ngeen ko seetloo sax euh, université bi ñetti ñetti yoon lañ ko defar benn bi dañ koy defar ba mu yem ci deuxième wala troisième étage foofu la suñ doole yemoon ñu bàyyi beneen bi euh, ñu continuer ko ba mu nekk cinquième étage muy ñaareel bi beneen bi nag ca gannaaw xam naa ne peut-être foofu egguñu fa mu nekk sax fu ëpp fii ñu nekk nii euh, dafa dem ba sixième étage fii mu nekk waaw yàlla daal ma ñu dimbali <laughs> alors euh, professeur euh, Issa Sall bu ñu nee Tata Dine la juddoo. en telle mun naa wax année sax mu ne. sax waaw bien sûr waaw. Euh, nga judd ca ca Tata mm-hmm. jaar na fi nga xamante ni moom mooy Ndar. Mm-hmm. jaar Ndakaaru mm-hmm. ci toujours ci ay jàng waaye aussi dem états mais docteur en informatique. waaw ñu bëri. peut dañ koy réeréer. oui mooy docteur en informatique. xam nga États-Unis diplôme bi ci gën a fort PhD lañ koy wax ñu bëri nag xamuñ PhD mooy équivalent doctorat. waaw États-Unis ñoom dañu jàpp ne mbir boo ko jàng ba xereñ ci da nga ciy philosophe moo tax philosophie docteur loolu mooy doctorat boo am am na sax ñu mu sax ne monsieur le professeur philosophe nga man leen déedéet man scientifique laa wante États-Unis nag boo fa amee doctorat di lañ koy wax informatique nag mbiru xare la la maanaam mbiru ordinateur defe naa ne fii gis ngeen fay ordinateur nag yu yàgg fii ci musée bi yu yàgg yàgg yoo xam ne voilà yi musée la ah université bi aussi dafa alors mooy xarala yi mooy fexe daal ba liggéey bi sell gaaw rafet am précision am organisation. donc moom précision organisation. voilà dafa nekk ay mots yoo xamante euh, ci ba euh, la jege. Mhm. Mhm. parce que. Mhm. nee nañu. ba nga gën nekk xale. waaw <laughs> loolu dëgg la moom du du yemul sax ci rajo rajo ak montre. dama koy tas dama koy tas gis nga même montre parce que rajo sax day compliqué ma dama lay wax montre montre xam nga dama ko daan def dama daan dindi verre bi hmm? xam nga montre bi di dox ma ne bon verre taxul montre bañ a dox kooku mooy sama raisonnement ah ma dindi aiguille benn aiguille bu ndaw bi montre bi di dox di am heure et cetera et di dindi pièce bu ma dindi rek te montre bi dox ma ne lii c'est pas essentiel bu ma demee nag ba laal boobu montre yi amatoon de électronique amatoon de montre remontoir moo am. bu ma demee nag ba laal pièce boo xam ne bu ma ko defee montre bi taxaw ma ne ah lii moo yore montre bi donc naa ci bàyyi xel noonu dama ko daan def ci rajo di ko def ci montre di ko def ci lu bëri mën a defar ay oto oto mbegeeg lu nekk wax <laughs> mhm. waaw waaw wax na dëgg wax na dëgg xam nga nag ñun euh, suñu kër daanaka dañu fokkoon trop njàng parce que xam nga euh, sama waajur euh, moom juddu 1916 xam nga loolu yàgg na de mais ku juddu 1916 dugg école temps yooyu dafa raar te nekk ci kaw moom duggoon na école école française dugg soriwu ci woon nag mais duggoon na école de telle sorte que moom kër ga yëpp jàng ñun ci kaw lañ nekkoon te dañ doon béy wante liñ daan bay daawul bëri waaw voilà voilà voilà voilà moom sama papa sax moom lañ ci daawul jiitu xam nga nu mu daan def bu jegee jàkk ja ba dem def li muy def yëpp dem na ca tool ya bu demee jiituñu dagg sas daggal ñu sas man ak samay euh, frère bu ñu daggalee sas ñun dañu dellu dañu nekk kër ga nelaw yeewu du ñu dem jàkk ja parce que xare lañu bu ko defee ñu dem ca tool ya ku nekk jël sa sas ñu béy mais 10 heures 11 heures du ko dépassé de allaaj yi la ma daan wooyee wala aas moom la mu musa wooyee parce que quand même ñu bëri dafa am lu ñuy jaawale dañu jàpp ne élage bi ndax dama dem Màkka si dem naa Màkka nag depuis 92 demaat naa yooni yoon wante sama tur ci état civil El Hadj Sall rek sax moo ci nekk bu ko defee mu ne alaaji dem leen kër ga ngeen jàngi donc vraiment ñun jàng dañ ko mus a fonk alors looloo tax. Euh, voilà mais fonk jàng boobu waaw waaw waaw c'est-à-dire am na am na am na benn xam nga xale rek aussi xale xale la am na sama benn mag bu jigéen boo xam ne dafa nekkoon ci benn classe rawee woon benn classe ñu jox ko benn opération trouvé wu ko mais enseignant yi dañu xamoon ne man sawar naa ci jàng te boobu sama mag boobu ma rawee benn classe xam naa ne moom na xëcc sama nopp tey wante il faut ma nettali ko ah du noonu alors gaa yi dem jëli ma ci classe bi ma nekk ne demal nga trouvé yow opération bi pour won ne yow sa mag bi moo la raw classe wa wante yaa ko jàq mais xam nga léegi bu nekkoon léegi man du ko def wante xale nag daggay sawar ma ne ñaa dem ñaa dem dem ñu jox ma opération mu trouvé ku delluwaat classe mais xam nga loolu waaw waaw bon ñaawloo ma ko gaa wante xam nga defe naa ne ña defoon loolu peut-être ñoo ko euh, bañoon def maintenant leçon bi aussi bu ñu bindaan leçon xay yu gàtt lay doon aussi ñetti liñ ñeenti liñ histoire euh, leçon de choses ak yu demee noonu bon ñetti liñ ñeenti liñ dañ neex a jàpp man nag dama koy xool di ko xool nga xam ne suñu kër ak école bi waroon na mat peut-être 500 mètres parce que dëkk bu ndaw la woon mais bala may nekk kër eh, egg kër ga leçon bi dama koy mokkal beneen bi xam naa moo di bi ñuy def entrée en sixième dañu def problème xam nga dafa am problème ak exercice entrée en sixième mais dañu def rek quelques minutes après matul 30 minutes ma génn sama mag damay wax xanaa da nga dof foo jaar mi ma ne non maa trouvé mu ne mais yow nit ñaa ngi classe di di composé yow nga génn ne pare nga. effectivement bu ñu confronté affaire yi man mi voilà man mi njëkk a génn maa trouvé woon donc yooyu mbiru xale la bon voilà. Euh, euh, waaw ah. waaw El waaw ah, parce que ki ñu ma tuddee. moo tudd El Hadj Issa Diallo looloo tax El Hadj bi ñëw. ñu bëri nag dañuy jàpp ne bi parce que dem màkk la déedéet wante nag topp naa tànkam ba dem naa ay màkk yoon yoon. waaw El waaw. Mm. Euh, euh, nekk waaw waaw waaw loolu moom jàpp naa ko. et puis génn akama ah, mënoon a dessiner mm-hmm. bu ma xoolaan dara rek dina Faidherbe waaw le gouverneur Faidherbe ak moustache yeeg képpi beeg bust bi daaw moo yem ci bi rek je pense que mm-hmm. yenn figure yëpp El Hadj Omar euh, Béhanzin Samori Touré ñi nga xam ne dañ ko daat jàng en histoire fu ma ko gisaan oui débordé bon lenn nag dama la koy wax man jete très distrait bu ma nekkee xale. te ah oui distrait te sama doom yi doon nañ ko ci man. Uh-huh. am naa doom boo xam ne ingénieur la fii bu nekk xam naa moom itam bu ko dégg na waa ne papa lu muy wax nii. Mohamed <laughs> bon polytechnicien la mais gis nga bi ñu ma daan woo école am. dañ ma daan woo boobu mu ngi nekk classe de cinquième quatrième ak yu demee noonu dañ ma daan woo ne sa sa doom ji euh, moom dafay perturber classe. parce que day nekk ci gannaaw ñi nekk ci kanamam mu leen di cokkaase yu demee noonu alors chaque fois dañ ma daan woo ba man ma noppi rek xam ne kii lii lii def ko doon waaw donc vraiment loolu espèce mais mais xam nga boo demee ba dem mag rek Mohamed fi mu nekk mun laa xoole uh-huh. cela veut dire que buy wax ak yow day sëgg ñu wàcc waaw. Euh, euh, waaw moom lu tax muy wax loolu. souvenir la yoo xamante waaw très bien bon xam nga déjà man dama teel la dugg école. waxoon naa sama papa njàng rek la ñu kii. Euh, moom xirtal sax ci affaire mathématique parce que moom traitant la woon daf daan wàccee di dafay calcul. man bi may am en troisième ci fu sama ut fukki at ak ñaar daana manqué na tuuti xoolal nag ñu jëlee la Tataguine yóbbu la ci dëkk boo xam ne yow mosoo ko xam à 400 kilomètres c' était pas évident. amofoon bokk man maa ngi fàttaliku parce que ñun exception bi mooy 68 la ñu def entrée en sixième résultat yi quelques jour après mu génn nga jóge dëkk bu mel ni Tataguine jaar Fatick am réquisition toujours buur de ñëw Dakar jël train nag bi ñu di jëlee train ñu ngi wàcc presque ay une heure matin saint mu bees ci man. ñu wàcc ak amuñu dara je dis ñaar man par exemple ñaar dërëm laa wàcc ndar amu sedd guy ñu yenn suñu walis xaw ma ndax xam nga walisu carton yooyu yom déet yenn sama walis mooy Fuuta yi certainement bon certainement parce que man nag aussi laa baataatigin laa de toutes les façons alors donc ba ko defee ñu dem foofu au début c'était pas facile la parce que ñun sax yàlla dafa def ñun euh, Tataguine ay béykat ñoo fa nekk donc ñuy amul ñoo fa nekk par essence donc dañoo war a nekk interne mais comme 68 mbir yu bëri dañu jaxasoo ñun ba ñu demee nekkuñu interne te amuñu bourse parce que kayit yi la moo egg moo eggutoon donc ñu nekk fan nekk bu xaw a jafe wante nag ndar nekk dëkk boo xam ne vraiment ñu am ñu yàq dëkku teraanga la vraiment ñu pouponné ñu jàpp ñu ba suñ jàng sotti foofu. donc li waroon na peut-être nekk lu métti euh, euh, euh, voilà exactement sa endurance bi nga am. loolu moom gis ngeen ko sama wàllu liggéey moom <laughs> man man du ma ci jaaxaan. waaw bu ma jàppanteeg nit rek euh, c'est parce que sa waa dafa tardé wala dafa def da nga ko sudul noonu sinon man aw ma benn problème léeg-léeg sax damay nangu liggéey bi def ko moo tax dañ may jiiñ ne yow lu ñu war a def rek yaa koy def du loolu. lii ah. hmm? maa ko taf ba léegi no am naa chauffeur am naa garde corps am naa lépp fi mu nekk nii. Euh, ah waaw xam nga nag boo buggee ne candidat yooyu il faut gars yi bàyyi xel ci yow donc yooyu yëpp am naa ko mënoon naa ko am sax mënu wax sax ne awuma ko. wante man damay sawar jël sama oto dawal ko dem sama kër ndànk toog loolu gêné wu ma voilà daf may impliqué waaw waaw xam nga dama ne tool ya sama papa moo fa daan jiite commencé bay ñu door a ñëw donc fii mu nekk aussi c'est la même chose muy école bi muy parti beeg fu nekk lu ñu fa war a def rek dañ ma fay fekk man man du ma wax gars yi def leen lii duma ko wax jamais dama ne gars yi dañu def lii dama cee jiitu waaw ku ma ci fekk fekk ma ci Hmm? mais da waaw waaw waaw waaw bon d' accord euh, ok. am na benn kilifa waaw d' accord ok <laughs> mooy simplement il faut ma gën a dëgër parce que li tax ma ne ma gën a dëgër dafa am benn kilifa bu ma woo yi la ne ma kilifa du jooy mais boo waxee sama waajur sama waajur bu jigéen boobu xaw ma ko euh, xaw ma ko 1961 la gaañu te man 56 laa judd jàpp te cinq ans yu manqué sax tuuti waaw donc. Euh, bon de façon inconsciente boo nekkee bi nga nekkee xale parce que man maa ngi fàttaliku bi mu gaañoo euh, sama ñoom papa dañu dañu ñu ne ñu ngi dem Dakar moom gaañu Dakar gii la gaañoo Caaroy ah Moustapha yéen fa fa mu ko denc d'ailleurs kër sama jarbaat bii la alors mu ngi gaañoo Caaroy ci kër yaayam sama yaay yaayam foofu la gaañoo ci kër la waaw ci loolu lay toll mënuñu xam nag atam yi exactement ndax matoon na sax 30 ans parce que bi muy gaañu bàyyi na doom liir bi muy gaañu bàyyi na doom bàyyi na liir liir boobu gaañu na euh, alors euh, ma gis gu paa yi di dem may ma sax ñaar dërëm wala ñetti dërëm waa dëkk bi yëpp jógee Tataguine di dem Dakar moi j'ai pas compris j'étais inconscient de la situation alors euh, ah, bi ñu delsee nag ñu ne ah Mati de moo fi moo fi jógee woon nag demul déjà je ne connaissais pas tellement je ne la connaissais pas que. soxna Mati Dem feebar na lu mat ñaari at yoo xam ne mu ngi Dakar donc da jàpp ne man bi ma ko gëjee gis presque ci trois ans laa am laa toll. souvenir bi ma bi ma jàpp ci moom rek mooy mos naa jóge dakaar ñëw jëndal ma palto ak béere parce que temps yooyu béere moo xewoon. mooy comme bi nga sol euh, ah, ah, mooy mooy bii nag. voilà mooy béere bii gis nga kii sama rakk la ndeysaan yàlla dafa def mu génn àdduna. Mhm. voilà léegi mu jëndal ma palto jëndal ma beere bi ñu ñëwee oto bi gaare bi ci kër ga boobu nag Latmingué la parce que am naa benn séjour bu ndaw bu ma def lat parce que sama papa traitant la woon léegi nag bi ñuy wàccee bagage yi palto bi wadd réer ñu ñëw ci kër ga ñu ñu eh, ki eh, bagage yeeg yooyu sama yaay ne ah alaaji di jëndaloon naa ko palto palto bi fan la nekk ñu génn nag dem gis ci wetu oto bi palto bi daanu foofu loolu laay fàttaliku ci moom waaw amul leneen loo xam ne mën naa la ko wax ci moom te li may wax boobu ci ñetti at laay toll. oui. Euh, euh, bon waaw waaw mais xam nga ñun ni ñu nekkee dans ci ci ci kaw ga mooy doo sa xam kuy say papa ak ku sa yaay parce que ñëpp ñooy sa papa ñëpp ñooy sa yaay te nag eh, sama waajur boobu amoon na ay rakk ak ay mag ma am ay nijaay am ay tante am ay yaay yoo xam ne eh, vraiment fi mu nekk eh, contribuer nañu ku ñu wax rakam bu ñu wax soxna Ayda Dem mais moom ci moom laa nekkoon mu moo uuf donc xam nga jooyu ma jooyu ma yaay aussi voilà <laughs> voilà voilà voilà c'est exactement doo wala. mais terewul ba waaw waaw ci ci ci bi. voilà c'est ça. mais dafa am ay traits pulaar. donc ah oui ah oui bien sûr. Euh, ah oui oui waaw ñun ñëpp dem ak Sall moom boo ko boo rek mu dem Fouta parce que ñun ñu ngi jóge Guédé ah voilà. Euh, euh, professeur Issa dafa am benn parcours bi nga xamante ni parcours atypique hmm. scientifique la. oui peut-être loolu mooy expliquer discrétion bi nekk ci yow. oui oui.

mooy gis nga bu ma xëyee man maa ngi dëkk Almadi am na jàkka ju nekk ci kër gi bu ma xëyee damay dem ci jàkk ji julli fa def li may def taal sama oto ñëw sama kër ñëw sama bureau bu ma duggee ci sama bureau bëri na sama personnel boo xam ne duñ ma gis parce que dama am porte porte nag boo ko déggee mooy porte dérobée waaye mooy sa waaye sarale dama am porte léegi nag ca gannaaw laay gaare sama oto jaar ci sama porte nekk sama bureau maa fi njëkk ñépp maa mujj a jóge fii ñëpp loolu moom boo boo duggee. déedéet duñ ma gis. xam nga du contrôlé wu ma leen. Mhm. dañ ma dul gis man damay kontaan bu ma egsee sama biro parce que lépp mu ngi sama biro boo ko seetloo am na sax benn garde-robe bu fa nekk tey nit bu ma soxla woon damay euh, ñëw rek. xëcc benn sol dem. bu ko defee am naa fi aussi loo xam ne ba ma bëggee defee fu séeréer mun naa ko def maanaam grignoter dara ak yu demee noonu. alors bu ko defee maa fi njëkk maa fi mujj te ba ma jógee fii damay delluwaat kër ga léegi la loolu mooy sama fii aw ma feneen fu ma jëm Dakar ñaari kër laa fay dem ñaar du ñett du ñeent ñaar sama kër tante fii Fann ak sama kër mag Badara Sall bu weesoo ñaari kër yi amul benn kër boo xam ne dinaa ci teg sama tànk Dakar waaw virangé dama ko tànn waaw dama ko tànn dam dañ ma ko yare li li tax ah, ah non si amul problème soxna dañoo wane. non non ah non non non loolu nit ña koy wax rek. ah, euh, ah xam nga aussi ñun ci suñu tradition. Euh, doo wane ne diw mooy sama doom diw mooy sama kii xam nga loolu ñun rupture bi ñuy def sax li tax ñu def loolu mooy dañuy bañ ay népotisme. parce que jiital sa doom wala jiital sa soxna wala ku fësal ko wala yu demee noonu gis nga ku bëri lu muy def loolu parce que yow sa soxna boo ko defee ci euh, ci kanam jombul bés boo yoree réew mi di nga ko utal ay or ak ay yéreeg yu demee noonu ay saak du noonu parce que bu nekkee ci kanam faw mu am ay saak yu seer ak yu demee noonu ñun nag loolu la ñuy bañ dañuy bañ dërëmu askan wi jóge ci askan wi ñëw ci ñun waaw moo tax euh, du sax question nëbb wala ñàkk nëbb mais loolu ñun waaw tànn la sama tànn la waaw euh, pour wax la loolu ne du ñu fësal suñu njaboot man sama doom fii la jàng ci école bi ma amee bagam dama ko ne doo dem fen amee fii ngay jàngi nan laay mën a amee école sama doom di dem bitim réew amul sens waaw te bac la am bu baax comme man nekk ci les maire bacheliers du Sénégal ñu nekkoon fukk ak ñaar seen école fukk benn ñëpp dem bitim réew ñi dem France ñi dem Canada ñi dem euh, Amérique man ne ko fii ngay toog mais déedéet maa la loolu mu jàngi fii ah. ah oui parfaitement parfaitement voilà gis nga bi mu jàngee fii nekk nañ ci benn classe ñaari at ki ko doon jàngal musu xam ne sama doom la ñi mu bokkaloon classe musul xam ne kii sama doom la ba benn bës rek am ñuy liññati liññati liññati seet peut-être nopp yu guddi parce que moom noppam dafa génn <laughs> voilà bi ñu gisee nopp yu guddi rek ñu xool xool ñu gis ne moom it affaire wàcce affaire calcul daf ko neex parce que daf daan waaw bu ñu defaan eh, ay mathématiques daf ci daan am note yu baax alors ñu ne nag euh, xam naa ne kii am na lu bokk ak président bi quoi <laughs> voilà. mu waaw ak ci nopp yu gudd aussi waaw. Ah, mm. ah, euh, euh, mm. mm-hmm. mais dafa am pour jeexal loo xamante ni aussi askan wi foofu ñu xam ko. waaw nee naa sànq nitu challenge la. Mm-hmm. mais boo nekkee ci benn mbir. Mm-hmm. da toog toog ko ba mu sotti rek. teg na leen jëmaat ci beneen waaw. yow mooy sa mooy sama càll fi ma toll nii. ah ma waaw maa ngi koy def xam nga ci njëlbeen nga. xam nga bañ commencé di wax ay pare naa ak yooyu te ma ne lii baaxul tey baaxul ëllëg seetleen la ma ca def. ah, ah loolu loolu aussi parce que xarañ loolu la jëriñ. sérieux loolu la jëriñ organisation loolu la jëriñ mun a ma nekk informaticien nag ñu indi mbir moo xam ne noonu la mel te wane wu ma sama bopp aussi lu ma nëbatu nëbatu léeg-léeg gars yi gis ma. ah léeg-léeg ma caw benn moo moo tax gars yi indi woon affaire parrainage bi defe ne mën nañ ko def ba éliminer candidat yi mais bañ ñëwee dama leen non dama leen dóor ñu daanu benn coup kaw te moom laa fas yéene def leen ni ci élection yi ñëw de coup kaw en tout cas hmm? ah mooy sa mooy sama force tranquille te que surprise xam nga mooy yow duñ la séentu fenn nga nekk fa hmm. fii mu nekk bëri na ñoo xam ne seen tuuj mi sax ci élection présidentielle yi mais nag li ma ci jaaxal ñuy commencé gis nag gis naa benn waaye bu bind non non ñun nag ñu ngi dañuy laal suñu loxo ci bant ah. <laughs> ah. <laughs> laal si loxo ci bant mooy dañuy fexe rek ñu bañ ñoo catu leex na ah. waaw chaque fois ñu naan ma chaque fois ñu ne macha allah rek ah mais nit ki nag ñaan la am ah nit nit ki moom ñaan la am waaw faw ñu ñaan nag fu nekk nag dañu ñaan loolu moom ah bien sûr

voilà xam nga xam nga liggéey moom li ci am solo rek mooy résultat bi nga am li may wax xale yi mooy ñu gëm li ñuy def am endurance am volonté bañ di gaaw a toqi toqi toqi mooy boo yégee ci garab jàpp ci benn branche say muscles yi dina dem bay waaw mbagg yeeg muscles yeeg yooyu mais nga jàpp ni métti na wante du ma bàyyi parce que boo bàyyi musiba am donc boo nekkee ci dara da ngay fexe ba volonté jàpp la ba réussir ko ñun nag lii ñu mag du fo comme on dit fii ñu jëm du fo parce que ñu jox la réew du am po donc dañ ko jël ak beaucoup de sérieux liñ ci war a def yëpp dañ koy def waaw de telle sorte que yaakaar nañ ci ndam. waaw aussi euh, hmm? euh, ci ci endurance. pour mën euh, am ay professeurs ci saa saa. oui exactement waaw xam nga. non xam nga dañ ma ko defal. xam nga lu tax ñu defal ma ko ñun bu ñuy def entrée en sixième juróom lañu woon entrée waxuma entrée en sixième léegi de yu yàggee nga xam déedéet entrée en lañ ko daan wax boobu dañ daan jël sax kenn mu nekk premier du Sénégal am na koo xam ne mosoon nekk premier du Sénégal du man nag mais gin la dëkk waaw Tataguine la dëkk nekk premier du Sénégal alors bu ñu daan defee entrée en sixième ñun ñu nekkoon juróom kër ga di ko def ñeent yëpp jàll. xam nga loolu raar na ba léegi sax directeur école bi yal na ko yàlla yërëm ko baax la monsieur Ndiaye man moo ma jàngal alors saa yi ma ko gisaan rek def naa Issa daal li ngeen amoon yéen seen kër ba léegi amatuñ ko goo xam ne juróomi candidat moo fa am ñeent yëpp jàll mooy la ma la waxoon ca jël benn ga rek ñun suñu kër vraiment jàng mooy suñu essence moo tax damay wax xale yi ne nañ jàng lu ñu mun parce que diggante jàng ak liggéey amul presque rapport jàng da ngay def pour am xam-xam mais xam-xam bi boo ko amee pour nga liggéey du jafe wante bul wax ne damay liggéey rek pour am euh, damay jàng rek pour am liggéey voilà. mu nekk kon euh, leçon bi nga xamante ni tey jii dinañ ko jeexale ak hmm. euh, professeur waaw waxal El Hadj waaw El Hadj bi El Hadj bi voilà <laughs> El Hadj gën a fort professeur parce que ah, El Hadj mooy ko dem màkk te professeur moom ay diplôme rek la voilà. waaw c'est ça. donc El Hadj Issa Sall en tout cas merci professeur. Jéena ba tey peut-être. Euh, ci candidat bi nga xamante ne moom mooy professeur Issa Sall. oui xanaa ñuy jox di daje euh, kon téléspectateur yi ba beneen yoon di gërëm. Mm. équipe bi nga xamante ne ñoom ñoo tourné. oui voilà.